بالدعوة بلي ورزقني بكل cheikh mouhamadul mourtada xaadima rasool at mu jot da daan wër àdduna si sépp di liggéeyal lislaam ak di ñoŋal bind ak jaar-jaaru waajuram wu góor wa sëriñ tuubaa xaadima rasool mi taxawal yoonu muri du leex yi li ni mel nag jur ñu jagleeloon ko ay bis yu bari ci bitim réew ñu ci doon amal ay waxtaan yu yaatu ay conférence jaar-jaaru mag ñi mu doon bësu lislaam yoo xam ne kenn nanguwu ko woon wuute diiru ba mu génnee àdduna ak léegi nag yàlla na yàlla yokku leeram njabootam gi ànd ci ak ak taalibe yi ci njiitalul sëriñ Mamor Mbàkke Muxtada di wëyal liggéey boobu bés yooyu ñu doon amal at mu jot ci weerum juin ak juillet ren ji nag sëriñ bi def cee indi ay coppite te dara waralu ko lu dul mbas mi ñu dippee Covid 19 te ñu nemmeeku ko ci àdduna si sépp sëriñ Mamor Murtada Mbàkke yëkkati ay kàddu jëmale ko ci taalibe yi mu leen di xamal ne bés yooyee du am benn ndaje waaye am na ay digle yum ci yëkkati. xam ngeen weer yi ñu jëm. muy mois de juin ak juillet yëpp ñu ngi ko doon dem ci ay tournée Europe rawatina Italie ak ak dëkk yooyu ak Amérique. dafa am ay journée yoo xam ne ay proclamation yoo xam ne état bi ñoo ko joxoon sëñ Mourtada muy tur muy bési lislaam lañ ko tuddee. le 8 juin mi ngi nekk euh, Brescia ñëpp fay daje këri diine yëpp koy bokk bu dee le 12 mi ngi Rimini pour dee le deux mi nga yi noonu lañ ko topp yooyu yëpp ay bis officiel la yoo xam ne état bi moo moo ko doon joxe. na ren ngeen ko gisal jafe-jafe yi ak ni mu demee la waaye bu mu tee para bu nekk ña fa nekkoon ak bés yi bu ngeen programme yi ñu tëraloon ci bés yooyu yëpp de su ko mën a def ndax ndaje xëy na ñu ko def waaye nañu fexe ba dundal ko ci ñaan dundal ko ci diine kenn ku ne sa kër nga toog fa. autorités yi tamit bu fekkee kenn nit wala mooy dem ca ñoom wan leen ne leen bis bi kat fii lañ ko daan defee ak lii ndax noo ko daan bokk ak ñoom. fépp fu ñu mës nekk ñoom ñëpp dañu mobiliser wu ñëw fekkee ko ànd ak ñoom yombal ñu yëpp kooku tamit noonu naka noonu États-Unis tamit Amérique tamit euh, bu ko defee nag kenn ku nekk bu bis yi jotee nañu ko màggal màggal goo xam ne kenn ku ne sa kër la màggal ndax liñ ci jublu woon lool rek la woon. mais am na sax ñu nekk fii ñoo xam ne ba tey bu fekkente ne dañoo ñëwoon fii mënatuñoo dem. wala bu ñu ñëwee fii liggéey bañ daan liggéey mën a defatuñ ko tey nekkoon ci yéen ànd ak yéen liggéey bi ñooñu ñëpp sax lu ngeen leen mën a dimbale rek daan wàññiwul wàññiwul wàññiwul dara. mbas mi ñu dippee Covid 19 diirub ba mu ganesee àdduna si ak léegi am na ñu ci bari ñu ci ñàkk seen bakkan rawatina ci réewu tugal yi ñu leen di ñaanal sunu borom teeru leen ak malaakam yërmande te xare leen aljana sëriñ Mamor Mbacke Murtada gannaaw ba mu jaalee taalibe yi ba noppi yëkkati na ci ay kàdduy digle. la ca deset mooy ñu ngi ñu ngi leen di ñu ngi sant gouvernement bi tamit président ndax. kenn ku ne am nga mbokk mu gaa ñu feneen am nga ko fi am nga ci jiif yooyu bu fekkente ne nag dem nañ ba ba war a seet te moom leen ne woon nañ bàyyi ba ñu xool bu ñu seetee ba jàpp ne mën naa am ndax amuñu intérêt di leen wax ne la leen ko fi bàyyi te loolu moo am dinaa nag loolu gis nañ ko ba kii tamit ñu ngi leen ciy gërëm bu baax di xamal nit ñi tamit ne leen lu mu ci mën di doon rek nañ ko def ci tey nañ déggal tamit docteur yi waa lépp lu ci ñëw baag indi baag ak fii tamit ak lépp luñ ciy def rek nañu fexe ba sàmm mu mu nekk am sécurité ci ñoom sàmm wér ga sànn sàmm ñëw gi bu ko defee ñooñu gaañu yëpp yàlla na leen yàlla yërëm te jéggal leen te ñu xam ne noonu moom ay ay ñooñu dëgg-dëgg ay ay ay ay mënees naa wax na ay ay ñu ñuy jihaat la ndax jóge sam réew dem di wuti loo xam ne teraanga rek la ak sa sa dund nga dem ba loola fekk la fa ah, ku ne xam na ne kooku ay caaxaan génn na ci moom bi nga xam ne mu ngi jeexal waxtaan wi mu doon amal jëmale ko ci mbokk taalibe yi féete bitim réew sëriñ Mamour Mbacke Mourtada ñaax leen ñu gën a topp digle suñ borom ak njàngaleem sëriñ Touba Xaadim Rasool te it di gën a taxaw ci dimbalante ak jàppalante ndax li ni mel dong mooy fondement wu diiney lislaam ak yoonu laax yu maamam jii di sëriñ Touba Xaadim Rasool. ñu continuer rek ci seen jaamu yàlla jaamu yàlla bul bul toog rek ba tiit di ko def. yàlla moo na ko sant pour toujours la euh, waaye saa boo ko jàppee na loo xam ne rek day ñëw boo te tiitee nekk ci boo ci jógee nekkaat ci leneen ñoom nag li ma ci mën a seede rek mooy mooy euh, seenu jaam seenu ndax nit ku dem ba ci foo xam ne lu ne mën nga ko faa def ci sag àdduna te tax dara taxul te taxul nga fàtte sa diggante ak sa borom mais loolu moo tax toujours may wax ne ñoom ña fa nekk ñëpp jàpp naa ne la leen fa yóbbu mooy li li nga xam ne mooy mooy li jihaad di firi rek mooy dem def dara ci loo xam ne yàlla rek nga moo nekk ci biir kon yàlla na yàlla sàmm ñoom itamit. mu doon ay kàddu yu sëriñ Maam Mor Mbàkke daa yëkkati woon jëmale ko ci taalib yi féete bitim réew di leen ñaanal suñ boroom gën a dëgëral seeni taxawaay sàmm leen aar leen yiir leen ba bépp naal bu ñu sumb ñu mën koo matal dellusiwaat ci biir réew mi ak jàmm fekk seenu njaboot ci jàmm ذهب